asalaamaaleykum euh, chers internautes Sénégo TV yéen ñi nga xamante ne yéen ñu tàmm du suivre si suñu plateforme digitale yëpp tey nag ñu ñëwoon fii nga xamante ne moom mooy Médina doon leen defar reportage ci match Sénégal Guinée c'est vrai que ni Sénégal qualifié na mais nag match en la comme euh, comme ni ñuy wax rek euh, entre de des compatriotes sénégalais et guinéens pays frontalier la plupart match bi lay nekk donc match bi am na enjeu moo taxoon tey ñu ñëw fii nga xamante ne moom mooy euh, Médina doon wax ak su Guinéens yi ak Sénégalais yi ñu wax ñu seen xalaat ci nu ñu gisee match bi. ah match bi ana mu passé jàmm asalaam rek eh, ñu ngi ñaan Guinée ak Sénégal benn bopp la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay eh, c'est deux pays frères amuñu différent dara. Eh, nit yi rek ñoo def différent mais man lu ma si gis sama bopp gisuma différent Guinée ak sénégalais yi ñoo bokk lépp lépp lépp ñoo bokk lépp amuñu différent dara damay ñaan mas bi passé ak jàmm salaam ku nit yi ñëpp mun a ànd ak dal ak xel ku ne xam ne lii football la eh, football bi day passé mais suñu diggante du passé nit yi nañ jàppandoo nekkandoo nekk benn nit eh, ñu mun a ànd. lu tax ñu naan lu tax ñu naan match match chaque fois derby waaw match derby la xam nga lu tax ñu wax match derby la eh, pays frontalier ñoo bokk joueurs yi da nga gis fii ñu sant sant bi ñu nekkee guinéen sant bi ñu nekk sénégalais fekke ñëpp ñi fekke original sénégalais ñi fekk original guinéen lañu noonu lañ noonu la nekkee loolu moo tax ñu wax match derby la ku ne day xaañoo moromam rek diggante mel ni pël ak séeréer xam nga loolu du kenn mënu ko dindi Sénégal ak Guinée noonu la mel ñu koy journaliste sénégalais yi ak euh, guinéen yi dañoo xawoon a jàppante loo leen di wax loo leen di conseiller en tant que euh, guinéen. Euh, man lu may conseiller guinéen yi particulièrement damay wax ku ne naan ànd dal ñu xamante ne surtout communication yi ñu xam ni ñu koy poser question yi kuy répondre tam mu xam nu muy répondre boo xamee lii boo posé question bi nga xam ne day indi coo diggante ñaar nit yi journaliste bi daf ko war a moytu. yow mii di répondre tam di nga xam ne boo répondé lii day indi yeneen problème yow tam da nga war a hésiter si lool kan nga yaakaar ne mooy gagné euh, man dama yaakaar ne match bi match nul la. waaw loolu laa yaakaar ma. ñun ñoo leen mën. waaw loolu loolu loolu nga yow loolu nga wax mais man dama yaakaar match bi match nul lay nekk ndax Sénégal dafa qualifié ba pare yaakaar naa Sénégal du ñu dugal seen joueur yëpp man sama yaakaar la wax. gisuma liste bi instant nii mais ñoom du ñu sonnal seen bopp ndax qualifié nañu ba ba pare bu amee match nul même bu dee Guinée moo dóor xam nañ qualifié Guinée tam xam na ne moom mun na bokk si meilleur troisième yi. salaamaaleykum père nuyu nañ la. waa soxna si noo ngi leen di fay. tur bi naka la. man maa ngi tudd Jibi Ñing. tey ñu ñëwoon père Jibi di def reportage ci préparation match Sénégal euh, Guinée bi nan nga ko gisee. waaw match bi ni ma ko gisee mooy maanaam nañu ko def ñu fair play rek comme yàlla dogal na Guinée suñuy dëkkandoo loonu te ñun qualifié na pare nañu nii rek bu xëy nu an dem parce que xam naa mooy neexal match nu an dem mais Guinée ñoom ñu ngi koy préparé de parce que match derby la non non ko gën a préparé foofu noonu pare duñu bàyyi dóor dañuy nii rek ñoom nag mais duñu bàyyi ñu nu moom non non non duñu bàyyi ñaata la ñuy dóor. non non bu bu leen dóoree 2-1 rek baax na. 2 rek baax na waaw 2-1 bu score bi luus baax na. looy conseillé looy conseillé Guinéen yi nga xamante ne ñoom dañu jël rencontre bi à cœur. waaw mais nañu ko def fair play rek xam ne ñun ñëpp benn lañu si la Guinée fi nekk nekkin bu rafet nekk day rek ay confrère di tooñanti kafre quoi nañu ko def affaire u match rek football comme ni ko coach bi léegi wax na wax ju daw yaram vraiment ne neen yëpp ay Séné ay mbokk lañu entre Guinée Sénégal di benn wax na dëgg nañu ko jël comme ni ñu ko jël rek kenn ku gagné rek ñu xam ne yàlla ndam li ñaari match yi nga xamante ne Sénégal euh, jongante na ko yow loo ci xalaat vraiment li ma ci gis moom dal na xel moom dal na xel parce que vraiment li ma gis mu def contre Gambie dal na xel li ma def contre Cameroun seulement contre Cameroun foofu la sama xol gën a sedd parce que Cameroun daal nga non boo baax na macha allah na ko jàpp foofu ba baax na jërëjëf père aleykum salaam tur bi naka la Boubacar Diallo Boubacar Diallo nuyu nañ la ñu fekk la fi tey euh, ci marché bi doon la laajte tey euh, entre Sénégal ak gine marché bi nan lañ koy préparation bi noo ko gisee. Ah, ñu ngi koy ñu gisee mooy que mooy que Guinée door ah. am nañ suñu suñu suñu deux bi yi nga xam ne gis nañ ko ba pare waaw Guinée kay foo jaatee mu Guinée dina dina kii Sénégal. match bi daal moom bu fekkente ne da ngeen di toog da di toog sax da ngeen di gañ. waaw waaw tey moom. ñu moom ñu moom tey match bi dañ ka yëgal suñu bopp sax parce que xam nañ moom fu ñu jaar mu tey nañ door Sénégal. mais ku la door 22 fois nan nga a mën mais noonu la ñu xam nañu maanaam tey comme comme match bi dëmb rek dëmb kenn yaakaarul ni kenn yaakaarul dina ba Côte d'Ivoire door kat mu fàll fi ñu door ko ngeen ko wér. waaw tey moom tey fu ñu jaar moom dañ dinañ door Sénégal. waaw ñaata ngeen koy door. nañ ko jox deux rek est-ce que Guinée am na ku mel ni Sadio Mané. Mm, waaw. mooy kan. mooy foofu aagi bi mooy fa. waaw mooy moom mooy seen yaakaar daal xalaat nga ne tey mën na door kat Sénégal. même bu fekkee mënu koo door mais moom ñaar moom dinañ ko door dinañ ko door Sénégal tey. <laughs> léegi ma la doon laajte ma la doon laajte à chaque fois bu Guinée di jàkkaarloo ak euh, Sénégal day doon loo xam ne derby la am na ñoo xam ne tamit dañ koy jëlee xool xam nga ma doon laajte yow lan nga leen di conseil ñi nga xamante ne lii foola rek ñu jëlee ko xol dal nga leen di conseil ci entre Sénégal ak Guinée. waaw ah, man man non euh, man pour ma Sénégal Guinée benn la quoi te ñun fii nekk Guinée tey bu fekkee Guinée du football Sénégal du football si ginnaaw Sénégal la ñuy nekk est-ce que kon jarul ga jarul di ko di ko téye kii quoi tey Guinée bu dugg Guinée bu ñëwee tey ba dugal Guinée dañuy jumbile pour man Sénégalais mënu ci dara Sénégalais bu ñu dugalee. Sénégal dañuy jumbler pour man Guinée mënu si dara affaire fair play la est-ce que comprendre tey kon ni ñu koy waxee tey am na ñoo xam ne tey comme man tey man tey bon damay kii te man tey damay ne man damay ne man Sénégalais la Sénégalais la mais samay samay d'origine mooy kii Guinée parce que man fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa xam. ñu ñëwoon doon def reportage ci match bi nga xamante ne moom lañuy ñuy préparé entre Guinée ak euh, Sénégal. ñu gis ne yàgg nañ di daje Sénégal di ko dóor mu yàgg lool Sénégal di ko dóor tey nag ñu gis ne vraiment Sénégal qualifié na ba pare ba même mi ngi daje Guinée ñu leen di laaj yéen loo leen xalaat ci match bi nga xamante ne moom la ñuy waaj a def nii ci kanam. waaw ah, match bi de moom lu si suñu xalaat mooy nag gars yi gën a góorgóorluwaat comme di leen dóoree à gën a dóoree à chaque fois ni gën a xool te seetaan nañ seen match yu passé. jou seetaan na Guinée muy joué déjà coach bi xam naa ni xam naa ay méthodes yi muy teg foofu dañuy dóoraat rek comme d'habitude noonu la rek laa ko ñaanee quoi. yéen xalaat ngeen ne mën ngeen ko mën boo xam ne da ngeen ñëw rek jaar si kawam. ah oui sax dañuy jaar si kawam jàll. Guinée yi seetaan nañu de. ah mënuñu tardel de. te ñoom match bi derby lañ ko jëlee. derby lañ ko jëlee ñoom mais ba mu neex a neex dañ koy dóor. loo leen xalaat ci classement Aliou Cissé yi def fan yi lépp baax na say changement ni nag nga war a wàññi man si sénégal la mais ci Mauritanie laa juddoo foofu laa màggee waaw damaa duggoon xalwa gisoo sama bët bi lu mu mel xalwa moo ma def loolu victoire rek laa soxla waaw. kon loo gis loo gis si match bi. match bi cinq 0 laa fi gis man buu laa tudd waaw maa ko wax. léegi yow yaa ngi wax match bi tey mais loo gis ci kan bi en général Sénégal day jëlaat ndam wala. incha allah rabbi. soo yaa ko wax de la maa ko wax maa ngi nii. boo bëggee ma jox la sama numéro. kan mooy dugal kan mooy dugal. saajo Mané benn dégg nga Ismaïl benn Sadio dugaat dugaat tamit jeex na. El dina dugal. El Hadj Diouf ci fan eh, eh, ci kaw mu ngi supporté comme man waaw. salaamaaleykum maanaam Abdou Aziz Diallo be waaw. Aziz Diallo loo gis si match bi ñuy préparé tey entre Guinée ak Sénégal. Guinée rek. ñaar ñaar benn. xalaat a mën na door Sénégal. waaw waaw yàlla yàlla rek. Ah. waaw yàlla rek. ñaar nga wax ak lan. benn. 2-1. kan mooy dugal Guinée. ke waaye nag Sadio Mané. Sadio nekkul Guinée. waaw ne ne ne ne nekkul Guinée. nekk Sadio Mané. dara. El Hadj Diouf El nekk. fii fii. fii. Guinée waaw. waaw. moom mi ngi football ba léegi. waaw waaw. mais dama déggoon ne El Hadj Diouf daa blessé. waaw waaw de de de blessé. dafa waaw mais dina joué waat tey. soobu yàlla. moom ñaata bii la war a dugal. ñaar. ñaar yàlla.